bokk na ci kéemtaanu xadiis yi muy xadiisub sacd ibnu cubaada yal na ko yàlla gërëm sacdu mu ni dama wax yonenteb yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama ni ko yow yonenteb yàlla bi man de sama yaay dafa génn àdduna ndax danaa ko mën a defal sarax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni ko waaw sacdu ni ko ana ban sarax moo gën yonenteb yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama ni ko mooy nga joxeel ko ndox te yàlla rek tax xadis bi nasaa'i moo ko solo kon ci ngay dégg ni joxe ndox lu am solo la lool lool te ndox ñépp ko soxla mbindeef bu yàlla bind rek soxla na ndox muy nit mbaa muy bàyyi ma nañu xool benn jëf am na jigéen joo xam ne mi ngi nekkoon ca banu Israil daan jaay boppam benn bés mu gis ab xaj bu nekk ci wetu ab teen di wër ngir mar soxna sa jël aw dàllam fexe ba def ca ndox dem jox ko xaj boobee xaj ba naan ca ba màndi daldi daw dem yoonam jëf jooja mu jëf moo tax yàlla sant ko ba noppi gërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee yonent bi def nii fa chakara allahu laha wa xafara laha yàlla sant na ko ca jëf jamu jëf ba noppi jéggal ko ay bakkaaram ci lan ay toq toq ndox rekk yu mu nandal benn mbindeefu sunu borom tabaraka wa taala muy ab xaj kon yow mi dimbali nit ngir mu jëfandikoo ndox naka sa jëf donte dangay dem sax ca jàkka ya teg fa ay sachet ndox ngir jullit ya jëfandikoo ko aw yiw la mbokkum jullit am na dëkk yoo xam ne ña nga ca àll ba soxla ndox lool robinet jafe leen ak i forage donte danga leen di gasalub teen sax ñu di ca jëfandikoo sun borom tabaaraka wa taala dala ci defal yiw ba keroog àdduna di tukki kon nañu leen fexe di góor góorlu ba di jottali ndox ci sunuy mbokki jullit ya nga xam ni bëgg nañ ko te mu jafe lool ci ñoom ndax képp ku gasal sa mbokkum jullit ab teen mbaa sax nga xëccal ko ab robinet ndox ndox moomee ñu di ca jëfandikoo ba keroog àdduna di tukki day doon aw yiw ca ko ko fa taxawal